ma jàkkaarloo nag ma sœur la plus belle moom jëkkëram sama xarit la waaye tey la tey daal tey daal xam naa ne du yomb ndax dinaa ko tëgati ko. Mhm. mais Ndiaye xam nga ne danga mën a sañse nag. lu ma. yaa ci fecckat yi ne Sénégal ak. woykat yi daaskat yi amuñu. amuñu xaalis booy amuñu. yoruñu. leen naan <laughs> jaay jaay man nag maa jaay. Mm. booy yoruñu man nag maa nañ nag. Ah. parce yu métti la ñuy sol mais yow say rek dafa lancer les les couleurs de l'été tu as mis du rouge. tu du vert du blanc. je t'ai amené des palmanes. Balmain déedéet. déedéet j'étais sur Balmain. Mm-hmm. jëlal ko chaussures yi yow. oui oh, je suis surlissé moi je def sa pantalon sauté. yaa ngi koy raay nag de yaa ngi yaa ngi raay émission bi. damaa sa ay lunettes <laughs> non da nga sañse franchement man xam nga dama bëgg lu rafet man. dama ah, bëgg lu rafet da nga mën sañse yow ñëpp la bàkkee vraiment. yow da a merci beaucoup mais du ma la dab. trop trop macha allah du ma la dab. déedéet doo parce que man ci fëgg jaay laa njëkkee. Mm. te fëgg jaay nga njëkkee mooy. mooy bu bi bi moyen bi moyen amulee. Mm-hmm. ci laa doon dem fëgg jaay yor sama benn deux mille lijjanti sama bopp. Mm-hmm. fii Sénégal rafet waaw. lii nii fëgg jaay ko def xëccoo fëgg jaay mooy weñ yi ñu koy. kiyee noonu waaw mm-hmm. ah, mais boo bëggee am lu baax faaw nga teel a jóg 4 heures du matin. bu ñu dindee weñ yi rek. nga daw dugal sa loxo. mais rek mooy loolu. moom damay defar ba mu rafet. yóbbu nettoyage ñu defar ba mu rafet ma paquet jaay. ma gisee tamit lu rafet mën naa ko jaay sama bopp. Mhm. waaw mais euh, ah. mhm. en tout cas tey tey fay na euh, ci lan nga nekk Pape on a vu dernièrement que yaa ngi génne ay ay ay single euh, entre temps ci ci lan nga nekk. waaw maa ngi ci ay business yu bari nag. Mhm. waaw business yu bari bari parce que ñun suñu famille famille lañ boo xamante ni commerce rek. mooy suñu def commerce. waaw ñun commerce la ñuy def ba pare incha allah maa ngi waajal showroom. showroom boo xam ne day def costume. Mm-hmm. costume africain. Mm-hmm. incha allah bu soobee yàlla waaj nañ ko si mois mais fi ñu bëgg fi ñu bëgg lañ amagul mais macha allah machine yaa ngi gàlle. Mm-hmm. te man sama métier bi ma jàng bi ma nekkee xale tailleur la sama papa tailleur la barki dem bu ñëw na jël machine yi. li ma ci gën a neex mooy machine yi sama papa ci njëkk a ñaw. te sama yàlla ci njëkk a ñaw. waaw mm-hmm. ah, loolu lu ma neex la. waaw mm. ah, te moo tax sama xel gën a dal ci li may dugg. mais ba ma la invité avant daaw daaw ji ci heure bi da nga ne woon da ngay ubbi showroom buy jaay ay yére parce que da nga sañ seet yaa fi indi woon sax ay plastique yoo ne woon 1000 euros nga ko jëndee paap. ren nga ni showroom costume africain est ce que xam nga fi nga jëm ñëw. ah yaakaar da laa am. Mm. te nag nit du jël xaalis rek dama jënd ay machine teg ko di ko xool. Mm. mais place place moo manqué parce que. dama ne woon endroit bi quoi fi leen wër ni yéen su ma fi amee day accessible Cheikh Sarr mën fa ñëw. Mhm. Bougane mën fa ñëw. Pape Diop mën fa ñëw. Mhm. Matar Diop sa copain mën fa ñëw. Mhm. ñoom ñëpp gars di jënd mu accessible quoi. incha allah artistiquement parlant ci ci ci lan mooy sa actualité ci lan nga nekk bu bu bu bu bu weesoo peut-être single yi nga xamante ne ñu ngi lay gis nga koy génnee fecc mi on voit que tu n'es plus dedans wala tu n'es plus chaud euh, que qu'est-ce que tu peux dire aux Sénégalais par rapport à ton waaw wax naa la maa ngi showroom bi mais yeneen yi. artistiquement parlé waaw ok artistiquement parlé. Mhm. maa ngi studio di waajalaat yeneen ndax. année mais booba tey amoo album Pape. am naa kay man li ma génn mën na album mais c'est-à-dire léegi. non album bu daje laa wax. album bu daje boo ko defee waxuma la ñun ñi ngi génn single di perte mais boo génnee album da ngay gën a perte. Hmm. ah mais ku la koy jaay. kan moo la koy jaay wala ngay jëlewaat Talla Diagne. Hmm. am nañ producteur mais amuñ distributeur. moo fi manqué te gars yi war nañ ko mën a créer. Mhm. xam nga tey bu ñu ne woon Omar Pène mooy génne suba wala Youssou Ndour gars yëpp dañuy daw Sandaga Talla Diagne. Mhm. ci journée bi mën mën mën nañ la jox lu bari nga téye artistes yi dañoo waxul rek mais affaire bi metti na de na fi. Mhm. metti na de moo tax ku ci ne di wut feneen fooy mën a tojee sa monde. ci lañ nekk quoi mais maa ngi studio maa ngi ci ay ba pare année bii dina metti de. waaw année bi ci des ndax bareeti na Pape. Ah, def naa la ci ñett de xaw ma ñaar. ñu ngi zoomé de. ah jox naa la ci ñett xaw ma ñaar. jox ñett yi neexul de. Ah? xale yi nee nañ neexul de. xale yi neexul. ci ñoom. xale yi nee nañ gëj ngaa woy lu neex ca namul dara ak si mbag mbag. waaw bo bo sax bi nga duggee grand cheikh si mbag la la wooyee nee na la si mbag. waaw mais yooyu daal moom incha allah. neexoon na mais yu mujj yi daal Pape amul euh, aura bi nga xamante ne moom la moom la moom la wax am. waaye neex na ci man non non non dañuy waxtaan. mais ku xuloo <laughs> kan moo xuloo kan moo xuloo na fi neexul ci yow ak ñeneen ña la ko wax waaye man neex na ci man xam nga koy jaay ku ne xam lu mu bëgg soqeeku. Mhm. te man ñi may wayal man ñi may wayal. ñi may soqe kon ko mu neexul yow zapper rek xool ka la neex a seetaan mais man wax dëgg yàlla li may def maa ci génn te boo ci génn woon du ma ci def parce que man moom sama njariñ rek laay wër. Mhm. sama njariñ rek laay wër de. maa ngi ciy gis sama bopp a ji yow ko amati single clip bu baax studio bu baax dafay seer clip bu baax day seer man wax nga ko léegi yëre yi may sol day seer kon kay bu doxul woon nag man ñi may wax ñu ngi may teral de mm. bu baax baax a baax a baax a baax a baax yenn yi nag nga gis benn way bu siiw nit way ko nii rek pour siiw mais man na fi weesu naa siiw mm-hmm. man mën na ancee laa ñëpp ma xam mm. man xam fa laa toll ci réussite mm. ak dimbali doomu aadama mais siiw moom pour ñu xam ma man nekkatuma foofu nekkatuma foofu de. Mm. man ci réussite ak dimbali doomu aadama foofu laa ne parce que vie bi yàgg yàgg fi muy mujj ñëpp xam nañ ko yàlla yéex. Mm. defe lu rafet rek partager ak nit ñi. Mm. ñëpp jàmm ku ne doxal. Mm-hmm. mais on a que à un moment donné euh, on avait vu beaucoup de danseurs yoo xamante ni dañu bootu woon ci benn association yow yaa nga ca bokkoon ay jamono mu créé woon fi ay wax yu bëree bëri association boobu fan la toll. ñu ngi ci ba ñu ñun waaw. parce que mmh. dafa am ñu génnoon ne ñii feccatuñu wala ñii dañoo moom fecc wala ñii ñoo ci jëriñu ñee jëriñu ñu ci ñan xal man fecc ca banlieue ba bi ma lay mujjee invité je pense que defoon nga ci quelques révélations mmh. aujourd'hui euh, est ce que réellement li ngeen bëggoon ci boobule association am ngeen ko boot ngeen fecckat yépp euh, au sent de de de de de ça non xam nga àdduna moom wuute gis-gis mën ta ñàkk mais ñi sentir ni seen bopp ci fii ñi ngi fa ñi sant seen bopp ci feneen ñi ngi fa. ah ñaari association la. ëpp na ëpp na ñaar parce que association yi kay moom chaque jour benn judd. Mm-hmm. parce que ku ci nekk di mais man li ma gën a neex ci bii mooy man dafa am lu may wër. Mm-hmm. mooy eh, nafi bu amee bu ko yàlla mayee tout tànk. ñu mm-hmm. mu seqal ku ne indi sa taraaga jàppale ko. bu kee amee safaan yàlla bu ko kenn am ñu dajale li ñu am jox ko. bu kenn tamit. amee ay ordonnance wala yaramam sutante ñu dajale li am jox ko. Mhm. man loolu lay xaar ci nit. Mhm. te nit loolu la am ci boppam moom. xanaa xamoon na fi bul foog ni loo defal nit rek yow da nit amul nit li gën ci du li mu defal boppam li mu defal nit loolu moo gën ci nit. Mhm. ñu bëri na xamuñu ko waaye li gën ci nit mooy li mu defal nit moo doon mu nitam parce que du ko jeexal na léegi la changé rek mais mag ñi bu njëkk dañ daan yoon kër gu rëy tabaxaaj bi dëkk ci. gis la ni am nga njaboot amoo kër ñu ne la kaay dagg xaaj bi dëkk parce que yooyu mooy teraanga. parce que ñun valeur yooyu lañu amoon. man pour man lu ma defal nit nga foog ni damaa dof dofu ma de yow yaa xamul man li ma def waaye man xam naa li ma def nit dafa war di terle nit dafa war di dimbali moromu nitam loolu boo ko defee rek li naan nit njariñ nit njariñ di mm-hmm. nit moom ko amul njariñ kenn soxlawu ko na fi. Mm-hmm. sa yi bu na amul woon njariñ doo ko sol Mm-hmm. mooy njariñ la ñuy doyee nit nit kenn ko lekk li ñu lekk xam nan ko ginaar yeeg xar yeeg yu baax yeeg yu neex yooyu la ñuy lekk mais ñun dañoo war di jariñante jariñ mënta weesu lii nga ma defal invité ma di jàpp ci promo bi lii mooy àdduna lii la ñuy xaar ci bugaan moom la ñuy xaar ci ñëpp mm-hmm. nit lu mu defal nit rek boppam la ko defal mm-hmm. parce que nit du rëy ba ëpp boppam rëy ba ëpp boppam. Pape lu tax feccetoo tey xutba yi. <laughs> non non non non non. tey digg ba doxul dañuy arrière de xutba waatee nii de tey Pape. man maa feccetoo man maa ngi fecc. yaa ngi feccal Pape. exceptionnellement Pape Diouf. parce que dañ lay gis ci seenam. Euh, bu soirée yi demee bay waaj jeex nga def def sa benn bi ngay def léegi rek mënatoo nag moom pap xam naa poids bi la benn bi ngay def rek arrière génn daw mais daan nañ la gis quand même yeneen artiste bu ñu soxlaa guest star dañ lay woo nga ñëw def sa prestation dem mais gisatuñu loolu pourquoi waaw parce que nag Papa Ndiaye xam nga du fecc katul cinquante mille wala quatre vingt mille ah xale lu ñu fay ah yaa ko wax tey non dama ne du fecc katu cinquante mille wala quatre vingt mille hmm. man xam ne may fayee xale yi xamuñu ko kon xaw ma ñoom li ñuy fayee mais man boo laalul 500 jëm kaw duma la feccal parce que si man maay seen papa nag. 500 ci wengalu tëb waate at papa. Ah, da ko da ko da nga ko yombal na xanaa xamoo football ak fecce gën a métti ci gën a métti fecc bu normal bu jaar yoon. ñu mm. naan la papa jaay du bàyyi guitare du bàyyi tama du bàyyi sabar soo bëggee ma defal la ko ba pare man li may fecculoo daf maa yéem man li may fecculoo boo ko neexul li nekk man du génn. luy loolu. li may def loo man. boo génnewul li nga war a génne moom ci boppam mooy bañ. dafa am lu lay kon da pa dañu ànd ay jinne Pape nag yow tey ñëwee nga neneen de. ndëgër mu ne da nga am ay jinne wala ñëwee nga neneen. li may fecc loo déet léeg-léeg dafa da nga bëgg a wax ne dafa am ay force occulte yu ne ci yow de. lu loolu ci ci olof. da nga wax léegi. mais yow am na loo àndal. Hmm. nit ko amul lu mu àndal daa am yow amoo iman de il faut nga boole